juróom ñett fukk dina dellusi asalaamaaleykum mbokk ngi ñuy déglu nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoon njub mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw am na nañu mbégte ci li nu mën a dellu tey ngir dégtal leen seen émission bii di yoonu njub nu ngi toll tey ci sunu juróom-ñett fukkeelu njàng ak juróom-ñett ci sunu gëstu bu chronologique yi ci kàddug yàlla ni nu ko gisee woon diirub junni ak xelum yàlla daan na xiir lu ëpp fanweeri yonent ngir ñu bind xaaj bu jëkk bi ci mbind mu sell mi maanaam tawreet saboor ak téere yonent yi xaaj bu jëkk booba ngi tudd kóllëre gu jëkk gi xaaj boobu yonent yépp bokkoon nañu benn xalaat ak benn kàddu dinu wax ne yàlla ku sell la te jub te noonu faaw mu àtte bépp bàkkaar wante yàlla ku bare yërmande la itam te bëggul doomi aadama yi sànku ci seeni bàkkaar naka noonu gisoon nanu ni yàlla diggee woon ñëwu ramokat bi di almasi bu sell bi naroon a judd ci janq gane ci àddina dee ca bant ba ngir fayal doomu aadama yi seen boru bàkkaar ubbil leen noonu buntub mucc ba faw ci ñaareelu xaajub mbind mu sell mi nag di kóllëre gu bees gi maanaam ci linjil gisoon nañu ne bi àpp bi yàlla tëraloon matee feeñal na ab musalkat di reeni xolam ni mu ko digee woon jaare ko ci ay yonentam kooku mooy yeesu kirist di mbotem yàlla di doomu aji kawe ji nit ku sell te mat la woon te fees dell ak kàttanu yàlla ndaxte mooy ruuwu yàlla ci boppam moona sunuy maam rey nañu ko ci daaj ko ci bant waaye yàlla dekkal na ko ci ñetteelu fan ba biral ko yéege ko ci palaas bu gën a kawe ci asamaan ni ko yonent yi yégle woon nettale bu neex bi téereb yàlla ëmb am na bopp te am na genn am na ndoorte ak mujj ni bépp nettali àddina su bon si gisagul mujjug nettali bi waaye kàddug yàlla wax nanu ni almasi bi yeesu nara delluse ngir daaneel seytaane àtte waa àddina si ci bésu penc ba te yeesalaat asamaan ak suuf looloo waral sunu njàngum tey di tudd yéesu Kirist dina dellusi li nu jàng tey nu ngi koy jukkee ci wàll wu mujj wi ci linjiil maanaam ci téere bi ñuy woowe peeñu bi peeñu bi téere bu xóot la te ànd ak doole ndaxte day yëgle it li nara xewi ci mujjug jamono ak ni àddina di tukkee téere peeñu bi ñaar fukki saar la ak ñaar ñuy saar yoo xam ne dañuy yëgle ndam lu rëy ci ñi gëm waaye ci ñi gëmul saar yi dañu ëmb tàngeju ju rëy rëy ndaxte téereb peeñu bi dafay wone ne soo bañee nangu yéesu Kirist ni sa musalkat dina mujj nekk sa àttekat ku nanguwul mbotem yàlla dinga daje gayndek yàlla ndaxte borom bi yéesu mi dee mel ni mbote mu ñuy rend ji ngir dindi bàkkaar dina dellusi mel ni gaynde gu yëmmu ngir àtte moom la mbind mi wax bi mu naan borom bi yéesu kirist dina jóge asamaan feeñ fi keroog dina ànd ak malaaka yu am kàttan safara su ñaañ wër ko mu feeñ ngir mbugal ñi xamul yàlla te bañ a déggal xebaar bu baaxu sunu borom yeesu léegi nag nu ngi leen di ñaan ngeen déglu jukki yi nu jële ci téere peeñu bi ba gis boroom bi yéesu gannaaw ba mu delloo asamaan ni mu yabale malaaka ci ndawam yowaana ngir mu won ko ni mu nara dellusee ci tukkitel àddina si ci saar wu jëkk wi yowaana bind na ne lii mooy li yeesu kirist feeñal te mu tukkee ca yàlla ngir mu won ay jaamam mbir yi dëgmal di ñëw yónni na malaakaam ngir xamal ko ab jaamam yowaana kooku mi ngi seede fii li mu gis lépp maanaam kàddug yàlla ak seede si ñu seedal yeesu kirist barkel ngeen yow muy jàng ak yéen yi déglu wax yi jóge ca yàlla te di sàmm li ñu ci bind ndax te waxtu wi jege na man yowaana ma leen di bind na yiw ak jàmmu féete ci yéen jóge ci yàlla moom mi nekk ki nekkoon démb te di ñëw ëllëg na ndam li ak nguur gi féete ak yeesu kirist ba faaw moom mi nu bëgg te yeewinu ci sunuy bàkkaar ak deretem ji tuuru te def nu ay buur ñuy jege yàlla baayam di ko jaamu amin gis leen mu ngi ñëw ci niir yi te ñépp dinañu teg seeni bët ci moom ba ci ñi ko jam sax te xeet yi nekk ci kaw suuf yépp dinañu jooy ndax moom waaw amin borom bi yàlla nee na man yàlla may alfa ak omega may ki nekk ki nekkoon démb te di ñëw ëllëg man aji kàttan ji amin nanu jàll léegi ba ci saar ak juróom-ñeent mbind mi nee na noonu ma dégg lu mel ni baat bu xumb bu jollee ca mbooloo mu bare ca asamaan naan haleluya mucc gi ndam li ak kàttan gi yàlla sunu boroom moo ko yeyoo ay àtteem danoo dëggu te jub ma dégg lu mel ni baatu mbooloo mu bare mel ni riiru duusi géej ni yënguy dënu yu rëy naan haleluya ndaxte sunu boroom yàlla aji kàttan ji dugg na ci nguuram nguuru àddina jébbalaat nañu ko sunu boroom ak almaseem te dina nguuru ba faaw bi loolu wéyee ma gis asamaan si ubbeeku noonu fas su weex feeñ ki ko war ma nga tudd ku takku te dëggu te ci njub lay àttee ak a xare ay bëtam di xuuy ni safara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 te mooy nappaaje reseñ yi ci segalukaayu mer mu tàng mu yàlla aji kàttan ji ci mbubam ak ci poojam bind nañ ci tur wii buuru buur yi kilifa kilifa yi noonu mu gis malaaka mu wàcc ca asamaan yor caabi kàmb ga ak calala gu rëy mu jàpp ninki nànka ja di jaanu cosaan ja muy tuumalkat bi maanaam seytaane malaaka ma yeew ko diirub junni at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 bi junniy at yamatee matee dinañu yewwi seytaane ca kasom te dina dem naxi xeet yi ci ñeenti xiblay àddina dina leen dajale ngir xare te dinañu bare ni peppi suuf si ci géej gi dinañu sam suuf sépp di wër dalugaay yàlla yi ak dëkk bi yàlla bëgg waaye safara dal daldi jóge asamaan lakk leen des na jàpp seytaane mi leen daan nax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 te dee dootul am walla naqar wala jooy wala metit ndaxte yëf yu jëkk ya wey nañu noonu ki toog ca ngàngu ma ne ma maa ngi yeesal lépp mu ne ma bindal ndaxte kàddu yi yu wóor lañu ci te mu teg ca ne ma lépp mat na may alfa ak omega njaalbeen gi ak mujj gi ku mar dinaa la may ci bëtu ndoxum dund mi te doo fay dara ku daan dinga am cër ci mbir yi dina nekk yàlla sa boroom te dinga nekk doom ci man waaye ñi ragal ñi gëmul ñiy def lu ñaaw ñi boom nit ñiy njaaloo luxuskat yi xërëmkat yi ak fenkat yépp seen añ moo di déegu safara ak tamarax bi loolu mooy ñaareelu déegi noonu malaaka ma won ma dexu ndoxum dund mu leer ni weer bu set di génne ca ngàngune mu yàlla ak mbote ma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 yàlla dina dolli ci sa mbugal musiba yi ñu wax ci téere bi ku dindi dara ci waxi yàlla yi nekk ci téere bi yàlla dina dindi sa wàll ca garabu dund ga ak dëkk bu sell ba ñaar yooyu ñu bind ci téere bi kiy seede mbir yi nee na waaw maa ngi ñëw léegi amin borom bi yeesu ñëwal na yiwu yàlla borom bi yeesu ànd ak yéen ñépp amiin noonu la yàlla àggale téereem bu yéeme bi di dige ne borom bi yeesu kirist mi doomi aadama yi daajoon ci bant dina dellusi ci kanam tuuti ànd ak kàttan ak ndam lu rëy ngir jëlsi ñi ko gëm te àtte ñi ko gëmul yow mi dégg lii tey ndax am nga kóolute ci kanam bés bu borom bi yéesu di ñëw jóge asamaan ndax bokk nga ci ñi ko nangu ni seen musalkat ak seen borom ndax gëm nga ko ci sa biir xol ne yéesu kirist mi mësula def bàkkaar yàlla sëf na ko say bàkkaar ngir jaare ci moom yàlla mën la àtte ni ku jub ndax bind nañu sa tur ci téere dund bi lan mooy sa diggante ak yéesu kirist ndax mooy sa musalkat walla sa àttekat lay nekki boo déggee tey ji baatu yàlla bi bul dëgër bopp ndaxte mbind mi nee na tey ji la jamono ju jekk ji tey la bisub mucc gi wante ñun ñi dégg mucc gu màgg gi bu nu ko sàgganee nan lanuy mën a rëcce mbugalu yàlla